élection euh, euh, parrainage yi jot ñu ni ko non amoo ay parrainage senegal gépp di ko naqarlu mu ni alhamdulilah comme senegal xam na ni am naa comme senegal nangul nan ma ne sama njàmbaar ak sama liggéey mu bàyyi loolu lépp di ko xeex di ko xeex ba tey mu ni nag nit ñaa ngi ñëw di ma wax ni naa leen jàppale léegi comme nag moom ñu ñëw nañ di ko wax di ko jàppale pour mu jàppale leen waa kër Jomaay Fay ñoo fa jiitu bi ñu ñëwee mu déglu leen en tant que nit koo xam ni mbooloo la yor ak nit ku nu yar ak nit ku bëgg réew mu déglu leen si yar ak teggin bi mu leen dégloo ni leen may leen ma ma waxtaan ak njaboot gi ndax politique léegi li may wax njabootu kanaara la da ngay jiital sa njaboot topp seen gannaaw ndax politique moo toll foofu mu def loolu si diggante bi waa Pire ñëwaat nañ ci diggante bi Khalifa Sall ñëw na fa si diggante bi Pape Djibril Fall dem na fa Anta Babacar Ngom ñooñu ñëpp mu déglu leen léegi mu ne noo samedi dana wax mais président Bougane bu waree wax samedi léegi président Macky Sall wax si samedi bi quinze h président Bougane buy wax léegi lan la war a waxati te président Macky Sall ni élection amatul léegi comme nee na élection amatul léegi moom buy wax lan lay wax ak lu ñu bëgg mu wax ko léegi. loolu lépp am ay nit jug di ko attaqué te moonte moom ñooñu président Bougane toog na si télé ni man jomaay laay jàppale wala boog bu jomaay génnee pare naa pour jàppale jomaay bi mu waxee loolu ñoom ñëpp dañ ko tàcc ni ko gonga rafetlu loolu te wax na ni bu Sonko nekkee première si ñiy xeex système bi man maay deuxième chaque jour bii wax day jiital Ousmane ko teg si boppam ndax oyof ndaxu mbaax ndax xol bu rafet mais nan ko nangul loolu léegi bu nu demee ba tey ñu wëlbatikuwaat di ko xas di ko saaga ñi koy def tekkiwuñu dara. ñan ñan ñoo koy xas. non ñenn la si waa Pastef du ñu ragal si li ñuy wax ñenn la si waa Pastef du ñëpp nag ndax am na ñu ko nangul bari na si man am na ay kilifa yu may woo di ko naqarlu am na ay kilifa yu may dégganteel ñu koy naqarlu ndax nag ña fa demoon toog ak président Bougane du ñooñu ñooy saaga président Bougane wala du ñoo ñoo koy xas ndax xam nan kan mooy président Bougane ñu si mel ni ay dof yi mel ni Tunkara la ay xaj yoo xam ne tekkiwun dara nga xam te ni nekk Europe presque def fa vingt cinq ans benn pantre sax munoo koo tabax ñooñu ñëwee wëlbatiku di xeex koo xamante ni 2003 mi ngi doon liggéey di fayeku tey mi ngi fay ay junni junni nit kon ñooñu président Bougane moo leen di tontu ñun ñoo leen di tontu ndax nag dafa am ñu ko waxal. xañ na ñoom wax moo leen dese mais li leen mitti président Bougane leen ko. gaa yi ne dafa dem euh, palais di di am lu muy di yoog Macky loolu lan nga ci mën a leeral wala lan nga ciy weddi. waaw loolu am lu ma si leeral wala lu may weddi ndax xam naa ne amut ndax président Bougane yàgg na wax ni su ma fekkoon président Macky sàll miy xeex bala ma koo àtte ak ki muy xeex yat laay jël dóor ba pare soog a wax lu ngeen jote xam nga nag dafa am loo xam ne olof dani ku sa wujj di euh, sëlëm doo set xëy na politique bi foofu la toll loolu ñu koy waxal ñi ko koy waxal waxal nañ fi Pape Djibril Fall lu ne waxal nañ fi Khalifa Sall lu ne du tey lañ waxal président Bougane te biñ demee ba soxla président Bougane doonoo sol seen dàll pour ñëw si moom te yàgg nañ koo waxal yàgg nañ ko koo jiiñ mais dafa nekk kilifa goo xam ne boo koy jiiñ yàpp xaj doo ko fekk sa ndab la ndax ñi ko koy jiiñ moo leen gën si kaw gën leen si suuf moo leen gën a set te li mu jëriñ réew mi jëriñun ko ko li mu def si réew mi defuñu ko fi li mu xeexal réew mi xeexal ko ndaw réewam ñoom defuñu ko fi damay wax ni président Bougane bu fekkoon boppam rek moo ko ñor dem na tooge bu yàgg moom rek moo fi mitin jël ñetti doomam ñëw teg xale yu ndaw waat ci seen kanam moom rek moo fi woo ay nitam yëpp Dakar jël ñetti doomam xale yu ndaw nii li may wax bu ma ko gëmul wala bu nekkul si man sama doom yi samay nawla leen jomb na maa wax ñoom si ñoom lu dul dëgg waat ko si sëriñam ni li ma wax suma ma yore Sénégal gëm naa ne lii mën naa ko Audio Jungle.